avec un un handicap est-ce que les avocats ñu ngi teg des procédures pour obtenir une liberté provisoire et lui permettre d'aller à la conquête des suffrages comme tous les comme comme comme comme tous les candidats est-ce que son temps de parole euh, va être respecté est-ce que commencé ngeen réfléchir ci loolu. loolu yëpp du problème mais si Macky Sall avait le courage de Senghor. Euh, la grandeur de Diouf et l'élégance de Wade day libéré Bassirou Diomaye mu dem defi campagne parce que tous les candidats doivent partir à chance égale sur le même pied mais ñun dafa am lu ñu gëm Pastef xam nga lu ñu gëm toute situation et une opportunité gis nga lépp lu état bi mas a jàpp que faiblesse la que ne menace la ci ñun dañ koy transformer en opportunité que Bassirou nekk en prison qu'il soit en liberté on va faire campagne et on va gagner incha allah ñun loolu lañ gëm ce n'est pas un problème mais bu ñu élégant woon Bassirou Diomaye fay du def un jour au Manuel parce que c'est pas sa place waru fa nekk bu defoon lu jar mu nekk fa mais du ñu wax de. mais Bassirou Diomaye dafa dafa am euh, nekk ci première procédure. Euh, ce fameux post Facebook qui lui vaut son séjour. Euh, il a trois mois ñu def une jonction des procédures entre moom. c'est de la ak ak Ousmane Sonko. alors dans ces conditions là. Hmm. Euh, le dossier est toujours en instruction. nan lañ koy nan lañ koy nan lañ koy.